hamani hala mahin mal absa wa safar allazina qaala lahum annaasu inna annaasa qad jamacuu lakum faxsawhum fa zaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allahu wa nicma alwakiil fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suu wattabacuu ridwaana allahi wallahu zu fadlin aziim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 léppam da koo leer ni ko ginnaawam leer karamam di la ko leer diyaafatul muxtaari fi sawaali tasadu annahu xabibul waali kon loolu xam ngeen ne nganu Daaru Salaam gi Sëriñ Tuubaa xam na ko lu yàgg te juyewu ci géej màggal gi ñuy bëgg waxtaane itam Sëriñ Tuubaa bind na fu bari katabtu yowma sabti inda galwa baxda jihaadi wa firaaqil alhamdulillahi allasi qad raada li al ida wasaaqali ahraada ladaa galwaa wa inda ba ma bihi uniru kulla ma ci biir wax jayit junñeeni ci bay wax ne nawaytu shukrahu ladaa daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa xilaam nawaytu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daarati minan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 di tàggoog taalibeem ya te a Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne léppam Sëriñ Tuubaa la àgg ci di yëkkat ba mënatu ko supporter ngir diisu demu sëriñ bi waaye boobu sëriñ bi wóor na ko ne nee na ko damay dem liggéey la Rasulullaay waaye léegi ma di soir fekkaat li fi mu dellusiwaat nag àndaaleeg ndam du rëy wax ne lii aw si li la si uridu wan faxi biyal waraaya mu xam ne an faxi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 kon bu agsee la jiitu ci lañ ko war a defal mooy bernde yi bu masaan sànn agsi njaareem gépp sëriñ bi day digle mboolem kilifa yu mag yi ñëpp togg ay ñam indi ko bu ñu sëlmay tisbaar ñu indi ko ci buntu jàkk ji ba kees fees dell ki ñam bu sëñ bi dikkee ba séen ko wax ne dañ ko séddale te buñ koy séddalee bu bàyyi kenn xam nga ne Cheikh Issa Dieng ràññu ko ne ci lool bu màggal bi masaan agsi fu ne dana fa togg ay teraanga indi ko